nekk dana yéeme lool dana rafet lool dana tegu cee fam war a tegu ndax soxna jaara kon daal pafaal dañuy dugg ci jumaa ji xaar imam mu ñëw rek ñu taataan li nga xam ni mooy bayaan yi nodd yi xutba yi bu ñu nuppee jullee ndoog ñoom suñu nuppee ba julli ba nuppi nag bu ñu mënee am imam ndax événement yi toll nii pour waxtaan ak imam bi dafay xaw a metti bu ñu nuppee toogandoog waa jumaa ji waxtaan ak ñoom euh, ñu leeral nu jumaa ji taxawaay bi nda xam ngeen ni dafa am jumaa ju bees ju ñuy tabax ci wetam euh, jumaa ji ñuy mooy jumaa ju jëkk waaye jumaa ju yees jooji moom la Seex Mamadu Muntaxa naal pour ñu mën caa ma ñu mën caa jullee yeggagul nag waaye incha allahu taala ñoo ngi ci jumaa ju ji nga xam ni mooy ju jëkk ja kon Pape ñu dugg ci biir jumaa ji xaar imaam mu ñëw alhamdulillahi alladi allah waxdahu la sharika lahu ilayhi almuntaha ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعانا إلى مراقبة الله حيثما كنا وبشرنا بجنات النعيم إن اتقينا وأحسنا صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma baad inna allaha azza wa jal laa yaxfa alayhi shayun fi l ardi wala fi sama wa yalamu xaainata al ayuni wa ma tuxfi sudur yaqulu allahu taala qul in tuxfu ma fi sudurikum aw tubduuhu yalamu llahu wa yalamu ma fi lsamawati wa ma fi l ard wa xaysu ma nakun wa kayfa ma nakun fallahu maana yasmacuna wa yaraana wala yaxfa alayhi sheyun min aqwalina wa acmalina wa axwalina yaqulu llahu taala wa huwa maakum aynama kuntum wallahu bima taamaluuna basir wa xiinama nakunu fi jawfi zalaam wa natahajjadu bayna yaday illahi wannaasu niyaam fa inna allaha azza wa jalla yarcaana wa yakla'una bi aynihi allati laa tanaam wa tawakkal ala al-aziizi ar-rahiim alladi yaraaka xiina taquum wa taqallubaka fi saajidiin wa xiinama natasaddaqu sirran ala alfuqaraai xatta laa taclama shimaaluna maa facalat yamiinuna qaasidiina alsalaamata min alriyaa wa ridwaana allahi fi alsamaa fa inna cayna allahi taraana yaqulu allahu tacaala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna allaha yaalamu wa xiinama nafaalu alxayra muxtasibin wa yunkiruhu baadu aljaahilin aw yansaahu baadu algaafilin aw yasriquhu wa yaddacihi baadu almuddaciin fa innahu yaraahu rabbul aalamiin ويدخره لنا ذخرا ليوم الدين قال تعالى وقل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وعندما نتعرض لظلم الفجار ونشكوهم لله فإنه يسمع دعوة المظلوم فاتحا أبواب السماء wa yaqulu wa izzati wa jalaali la ansurannaka walaw bada xiin wala taxsibanna allaha gaafilan amma yacmalu zaalimuun innama yuaxiruhum li yawmin tasxasu fihi al absaar idan فلنراقب الله عز وجل وإذا راقبنا الله نور قلوبنا وعقولنا بأنوار الهداية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 inna allaha baaligu amrah qad jacala allahu li kulli cheyin qadra alhamdulillahi ala nicmati lislaami wa hiya aczamu nnicam almunci biltafadduli walxaakimi bilcadli walmawsuufi bilkaram almutacaali an alintiqaali walirtixaali walzawaali walcadam alladi laa yuusafu bi jinsin fala yaxwi ilmahu lawxun wala qalam ahmaduhu subhanahu wa taala ala kulli xaalin min wujudin wa adam wa ashhadu an sayidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh yaa lahu min nabiyin baasahu llahu ila kaafati alxalqi nabiya fa andara wa bashara wa xawafa alahzaaba wa hazam sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma baad ayuha annaas ajaarana allahu wa iyaakum walmuslimina min albasi walniqam laa taxurannakum addunia bi zuxrufiha fa masiruha ila aladam in aqbalat adbarat wa in safat kadarat wa in amintaha gadarat walam tuufi bi waadin wala ahdin wala dimam qaala taala yaa ayuha nnaasu inna wacda allaahi xaq falaa taxurannakum alxayaatu addunya wala yaxurannakum billaahi alxaruur innaha addunya kam asbalat fa hatakat كم أضحكت فأبكت كم أخلت من قرون وأمم أين الملوك الأكاسرة أين السلاطين الجبابرة أين فرعون وهامان وأين ملك سليمان أبادهم والله من بدأه ومزقهم من جمعه وسيعيدهم الرقيب بعد الموت والفوت والعدم إن ربك لبالمرصاد عباد الله ويا كثير الخطايا والذنوب ارجعوا إلى علام الغيوب واغسلوا أنفسكم من الذنوب بإخلاص وبكاء وندم قال تعالى إنما التوبة على الله lilladina yacmaluuna suua bi jaalatin summa yatuubuuna min qarib fa ulaika yatuubu llahu alayhim wa kaana allahu aliman xakima ñu ngi sant yàlla ci xéewal bu mag yi nga xam ne moo gën a mag ci xéewal yi te mu xéewalu xéewalunu ko muy xéewaluk lislaam yàlla mi nga xam ne du fi jóg du dañ du ñàkk du tuxu du laxas ñi ngi koy sant di tudd ak sellam ci waxtu wu ne di seere ne sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa mooy jaamu suñu boroom mooy ndawam yépp li yàlla yónni ci bindeef yépp muy xuppe ak a bégle yàlla na ko yàlla dolli xéewal te dolli ko tedd nga dolli ko ay ñoñam ak i saxaabam yàlla itam dolli ko jàmm ju bari bokk yi yàlla na leen yàlla xettali te xettalilu ci aw ay ak i mbugal na ngeen bàyyi xel àdduna bu mu leen wor ci taaram bi wala lii niru ab taar ndax fi muy mujj rek mooy ñàkk su la dëgmalee itam dana la woon ginnaaw su sellee ci yow itam teey dana sell di dana nax soo ko wóoloo itam mu wor la moom du matal ab dig du matal ab dël du matal kóllëre ngeen bàyyi xel li yàlla waxoon rek ne lim leen dël moom suñu borom mooy li dunduk àdduna ji bu mu leen wor iblis itam bu mu leen wor ndax moom àdduna kat bari na lool lu sëmbërtal suturaam ci doomu aadama xëyaat xotti ko bari na lum bégloo reeloo xëy jooyloo ñaata xarnu la àdduna faagaagal ñaata xeet la faagaagal ana buur ya ña daan note anañu ana firawna ak aman nguuru suleymaan ga ngeen daan dégg anam ñoom ñépp yàlla mi leen amaloon soso